la ilaha illallah la ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق قدر وصبح نصر أخلاقه ولا يأتى الكلب الطائب نبينا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه ما هو أهله جزى الله عنا شيخنا وسيدنا أبل عباس أحمد التيجان رضي الله تعالى عنهما هو أهل جزى الله عنا شيخنا وسيدنا المجاهد الأكبر الهاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنهما هو أهل جزى الله عنا شيخنا وسيدنا ومربينا ووالدنا الهاج مالك رضي الله تعالى عنهما هو أهله جزى الله أن الخلفاء والمقدمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في ضيق شديد التراكم فها نحن في ضيق ولم نرج فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في أود الديننا غريبا كما في البدء يا خير راهم يا من أزهر الجميل وستر القبيح ولم يؤخج بالجريرة ولم يحتك الستر يا أزيم الأف ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم السف ويا أزيم المن ويا مقيل الأسرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي نسألك ألا تسوخ خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin allahuma anta assalaam wa minka assalaam وإليك يؤود السلام فهينا ربنا بالسلام وأدخنا الجنة دارك دار السلام وأدخنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا إننا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاسئا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا تقبل منا إنك أنت السميع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 فوابلوا تدرق يوز العوامية نيوان جاو أشبع راكن تودا جلالاتي جبر القلب كوسلمان jërëjëf ngi lay sant bu baax a baax yal na yàlla dolli neexal baat bi dëgëral la. Eh, nee di santaat yàlla bu baax a baax a baax. nee di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Eh, ci li nga xam ni moom la yàlla may tey. nee na moom la mayaat tey sax. ndax xadara bii ñu def. bokk kook. dereetu Seex Alxaaji Abdu Al Aziz daa baax taw mooy teewaayu sëriñ Lam Tooro Si bu Seex Alxaaji Abdu daa baax nee na moom mii nee na ku jege woon góor gi la nag jege ku jege woon góor gi la. firnde bi rek. nee na firnde bi rekk waxoon nañu ni. nee waxoon nañu ni. ngir xorma góor gi. ngir xorma góor gi. ci bañ a yàq li ko yàlla jox. ci bañ a yàq li ko yàlla jox. rawatina ñam. rawatina ñam. góor góor gi bu doon jëfandikoo ci ñam ba pare. loxo yi. nee na loxoom ya. daanaka woo. moom Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Daaba. Lamtoora ni ko Lamtoora. Serigne Lamtoora Serigne Lamtoora. Mhm. Mhm. maral ma ma sama loxo bi. ba benn pepp bañ ci des. ba benn pepp bañ a des ci loxo bi. moom mii di sëriñ bi. moom mi toog nii. moo doon téye loxo ku tedd kooku di Cheikh El Hadji Abdou Aziz daa baax. ba noppi ba noppi raxasu raxas ko kon mën nañu wax ni tey Cheikh aji Hadji Abdoul daa baax moo teew ah, nee na du tànqam lu dara nag. rawatina dëkk bii ñu duppee Tiwaawan boobee di Cheikh Alaaji suñ ko ko yëgalee rek mu bàyyi itam yépp teew nee na tey ji si gàmmu la jëm nii si gàmmu jëm ni nee kon ñi ngi wax ni ci turu imaamu ratib ah, di imaam alxasan saw yal na yàlla suñ borom bi yokk ko wér ak ci ñiy teew di imaam Ibrahima Ba ñu bañ gën koo xam ci congel teew na ak Baye Juga Fall mi di wax nee na kon imaam yi teew nañ nee na ñoom ñëpp ñu ngi wax ci turu dëkk bi turu chef de village di alxaaji buubu ñaanal leen yàlla yàlla def fi jàmm saxal ko fi yow ñu lay ñaanal nag yal na yàlla may la jàmm yàlla barkeel sa xam-xam saa yu ñu jubee gàmmu Tiwaawan Pël nee na nañ doon gàmmoo rek kii di alxaaji Malick Gaye mii ñu ñu ko ci Maodo Gaye bu Baye Gaye bu Daaru Salaam moo wax ni moo wax ni ñun ñii nekk ci gox bi ñun ñii nekk ci gox bi ku fi gàmmooti ku fi gàmmooti na ko laytaayal xadratul jumaa ko laytaaye xadratul jumaa moom mi toog moo ko saxal moo ko saxal ba gàmm yëpp a ngi koy def ba gàmm yëpp a ngi koy def ngeen seedeel ko loolu ngeen seedeel ko loolu way juróom way juróom am moo am lu ñu bari amul. ca àll moo am ba dem ba ca àll ba. ca guy ya ca guy ya. ca jinne ya ca jinne ya. samp fa daara samp fa daara. fekk na ko fa. Alhaji Abdoul Aziz daa baax fekk ko fa. mag ñu baax ñëpp fekk ko fa. mag ñu baax ñëpp fekk ko fa. tey moo toogal way foofu. tey jii moo toogal way juróom foofa. bàyyi ay iteem yëpp. bàyyi ay iteem yëpp. nekk ci daara ji. di suma xarit. di xarit nee na di xaritam moom euh, Alhaji Abdoulaye Ka. nee na di seexam kon moom nee na ñëw na ngir fedd li këllëre kon sëriñ bi mbir mi dañ la koy jox rek ñuy wax nag mboolem ku fi teew ñuy wax mboolem ku fi teew dafa am taaliba bu fi ne kenn ku nekk loo yor nga indil ko ko fii ñu dajale ko nee na pour lam tooro nee na du pour moom de keneen la ne keneen la ñuy gis. ne ku ne andi rek. ne ku ne andi rek. ndax kuy jaay ay oto. ndax kuy jaay ay oto. maa koy siiwal sax. maa ngi koy nee na mi ngi koy siwal sax. xam na ni. xam na ni. na baykat ba defoon. na baykat ba defoon. jën ganaaram. ak dugubam. ak ko buur bi yóbbul ko buur bi. dolliwu ko dara. dolliwu ko dara. waaye loolu la am. ngir barkeelu. jox sëriñ bi kon dañuy jox sëriñ bi rek. tey lil wara wa jalalatin wa jaa bi ayatin maxat kulla qaalatin xafi xaqi shakkun bada alfi talalatin taqaddamaha zikrun mada dahru yoqroo kootoo tax ñu bind ñëpp moo tax sa maam nee na lamtoora wa maa xalaqa arrahmaanu say an li nafsihi siwa sayidil mahmoud wa huwa alxubibu ñu ni cheikh al aji malik mënu kooku mooy muhammad loolu jombu ko mooy siru naa mooy nuuru naa mooy majju naa mooy mustafau naa mooy saadatu naa mooy amaanatun mooy makaanatun xun mun wa xayru simaami kooku sa maam moo ko wax sa maam ja ca Tuubaa naan raamal wara nay la fëddalin musriina looxoo wal fadul ila rasulillahi xaraarun kon nag dañ la koy yëkkati rek jërëjëf sëriñ nee na sëriñ Jebaay mi ngi teew eh, teew teegal fi njabootu sëriñ Touba moo leen fi toogal nee na nii rek la dëkkeek ñun nee xadara yëpp day teew nee mu rafet lool nag jërëjëf aoudu billahi sami alalim min alcheytan arrajim alhamdulilahi alwahidi alfardi alsamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufan ahad wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lilaalamin sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi tayyibina tahirina ajmain wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi ddin wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi gannaaw ba ñu santatee yàlla moom buur bi nga xam ne moom rekk moo yeyoo kañ moom rekk moo yeyoo bakk na mu ko soobe ak na mu ko neexe rekk noonu lay doxe mu wax ko nag wa tilka al aayaamu nudaawiluha bayna naas du kenn ku dul yàlla mooy boroom kàttan mooy boroom mën-mën mooy mooy mooy kon buur boobu tey mu mel ni am na lu ñu taataanoon ci suñu matadi waaye moom ci matam ndax yàlla rekk moo mat mu ne kat jàmm bi li ma yor du jeex te séddewuma ko lu dul jaam yi kon jaam yi laaj leen ma ma jox leen kon mu mel ni ñun tàllaloon nañ loxo ñaan yàlla ne ko bés bii bëgg nañ ko fekke kon nag mu mel ni la mu diggeek ñun moom yàlla ci matam defal nañu ko ci suñu matadi nag ñun kon lu war ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin ndax kat diggante bi lu nekk xaj na fi lu nekk xaj na fi ci diggante bi damay wax ne sant nag buñ koy wax du lekk ba suur wala naan ba man di raay kolo naan maa ngi sant yàlla sant sa boroom mooy li nga xam ne moom la ne ifaal la tafal yàlla wax de nee na man sama construction ñaari moo rek la ñaari baat la beneen constitution boo dem dinañ la liitar ay chapitre naan la un deux trois waaye yàlla yàlla nag dafa ne ifal la tafal lii lu baax la yow lam tooro sax ca te bu ko bàyyi lii lu bon la bàyyi ko kon yàlla nañu yàlla xiir ci lu baax di yëkkati ay kaddu yu gàtt ndax liñ fi def leneen loo ci wax rek bari wax lay doon waaye beneen bi ci des mooy danaa teggi tuuma teggi tuuma bi mooy lan suñu ñëwee xadara ba dem te waxuñu boo sàgganee gaa yi poñe suñu imaam te bëgguma nag ñu poñe sama imaam moo tax ma yëkkati kàddu yi fa tabaarakallaahu mu tukkee ci suñu làmmiñ waaye jóge ca xadaratul dematee ci mbooloo te mbooloo yépp foo ci dem man maa lay sama tànk ngay doxe sama làmmiñ ngay joxe waaye bul nuyu góor ñi dee ma nuyul jigéen ñi xalifa bi moo ma ko sant de dafa ma yónni may dem mu ne ma mbaa sa xel demul boo demee nga nuyu góor ñi ma ne ko nu may def mu ne ma nuyul jigéen ñi rek yem foofu kon jigéen ñi xalifa bi nee na mi ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax a baax ah di wax ne rek alhamdulilahi rabbil alamin ci lii ñu yàlla defal toog di kañ suñu borom di bakk suñu boroom muy ala bi zikrillaahi tatma inul qulub seen maam Cheikh Al Hadj Abdou ne si zikrul ilaahi lil qulubi quutu waaye in lam waaw. in lam. Mhm. Mhm. yaa ibaada kon ñun la sullamu li xadarati mhm. mu dellu siwaat ala bi zikrillahi tat zikkar dana dundal xol te xol mooy nit illa man ata allaha bi qalbin salim na al qalbu laa bil iman kon mu mel ni tey bàkk nañ yàlla delloo ko li nga xam ne moom rekk moo ko am moom rek moo ko yeyoo ñu ne laa ilaha illa allah amul benn buur budul yàlla ci gàttal ma firee ko noonu amul benn buur budul yàlla muy waaxid allahu waaxid qul huwa allahu ahad allahu samad moom kenn lam yalid walam yulad wala yakun lahu kufan ahad waaye ndekete yàlla kenn du ko gis waaye danga nga koy yëg la nga yëg nag bokk na ci lii ñu nekkoon tey moo tax tariixa cheikh léppam génnul alxuraan laa ila astaxfirullah istaxfiru rabbakum innahu kaana gafaara yàllaay wax de mooy tariixa bi de astaxfirullah ngeen wax de xam nga yonent bi sallallahu alayhi amul benn défaut amul benn bàkkaar ndax ka ko yar sallallahu alayhi wa sallam waaye suñu borom daf ko xool ba sa ne ko ah eh, ne ko ne ko ne ko ne ko dema jéggalu istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafar istaghfir li zanbika kan la joxoñ yàlla yonent bi moo jur astaghfirullah bii tey waaye du woon pour moom pour ñun la waaw déedéet yonent bi amul benn bàkkaar amul defoo ndax yàllaa ko yaral boppam te yàlla ku mu yar nag doo am échec orienté ko mu gën ñëpp jiitu ñëpp waaye mujj ñëpp moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye xool li ko yàlla wax ndekete boobu pour ñun la ñun ñëpp ndekete ñun setuñu setuñu de waaw suñu borom ne yonent bi waxal sa xeet nañu set nañu soobu ci mbànd mi mbànd mi nga xam ne ku ci soobu ah muy astaghfirullah set gi nag du caage nag set du saabook njàmpe mooy setal xam ngeen luy setal xol xol njàmpeeg saabu mënu fa àgg moo tax astaxfirullah nga koy wax astaxfirullah la ngay yëg ci sa xol ndax mënoo dëkk ci astaxfirullah di am bàkkaar waaw yàlla nee na seeni bàkkaar yi astaxfirullah rek moo ko bind istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaara nga dëkk ci astaxfirullah ka tax nga koy wax du kenn ku dul suñu borom na ko Cheikh Alhaaji Malick doon defee noonu ngeen ko defee moo tax sànq bi ma agsee nit du tuumal boppam léeg nga waxtaan ci tariqa bi condition yi cheikh ko moom tariqa bi santul si santul taal Cheikh Alhaaji Malick moo ko dox ñu ne ko lu tax nga wax taal mu ne seexal Alhaaji Marul Fuutiyu taalu bali ci kon Maodo lan la ciy doon waaw moo tax bi ma agsee sànq ñu lal ñu lal ñu lal pour bëgg ma toog ca ma toog ca gannaaw ñun ñëpp ci bokk yam boo agsee rek ni ko yonent bi daan defe ni ko sidna cheikh daan defe fu mu mujje fekk rek ba ci waxuma ñooñu sori nañ waaye cheikh alhaaji abdou bi nga xam ne dund nañoo moom bu agsi waan ci ñuy xaar nangam nangam mu toog ca gannaaw faf benn bés nee nañu samaam cheikh xaaji maalik nee na tariqa bii malik taalube la ci te Maodo musul ne samay taalube Cheikh El Hadj Malick musul ne samay taalube ñu ne ko lan nga am mu ne ay bokki taalube ndax dafa jàppe boppam taalube moo tax léeg-léeg nga ñëw ñu naan lalal nañ sëriñ bi nangam mais yàgg sëriñ bee ca yem tarixa bi santul si ku jëf rek am li nga bëgg boo santee si te jëfoo ca doo ca am dara barke Cheikh Al Hadj Malick dina fi ne ndax foo romba ñu ne si. ñu jox la loxo yëkkati xaalis jox la ngir sa maam la waaye wàllu yàlla doo ko am mukk te wàllu yàlla moo ëpp loola dinañ si ñëw pour wan rek ne tariqa bi ni muy doxe moo parce que cheikh a indi ay condition man condition cheikh laay indi cheikh xaaji Malick ci la jaar yar ci njabootam ba tey jii loolooy nekk du tere tamit foo gisee ku bokk ci Cheikh Hadji Malick nit la comme yow te sama baay daan na ma wax ne si nit du ëpp nit du ëpp boppam ku ëpp nit looy doon kon mu mel ni astaxfirullah mbokk yi dëkk ci sabaan wa masaan sa xol am lu ci nekk lu lëndam war nga seet sa bopp du astaxfirullah bi ngay wax ndax lu lay àggale ci sa boroom nga topp ko di ko wax te amoo yég yëg dara ci sa wàllu yàlla wàllu yàlla nag nag nga koy yége mooy ci say jëf yonent bi sa alayhi bi ko yàlla di jox alquran lu mu ko wax yaa ayyuha rusul balligh ma unzila ilayka yamul foofu mu ne ko wa in xal tafxal nag <laughs> waaw moom yonent bi de wa in lam tafxal ne ko bul toog rek yor micro bi comme ni may def nii di wax di wax waaye dama ne yàlla ne ko yonent bi wa in lam tafxal na nga jëf nag léeg ku mel ni man waxtaan génn ñu naan sëriñ bi toj nga fi waaw bu ma tojee fii beneen ustaas toj fële keneen toj fële kañ la réew mi jox ñun bi ñu commencé toj ñun xale yi ci la lépp màbb xol yi dara baaxatu ci parce que waxatuñ ngir yàlla la ñuy waxe mooy poos ak xaalis lu yàlla daganal bu kilifa toogee nga yaakaar ci moom dara la yàlla wax yépp araamal ko nga daganal ko ko kon kenn waxatul ngir yàlla wax ngir poos yi la muy conférence yi xew muy gàmm yi te mag ñi liñ ñu fi indil bu dul dëgg ci yàlla dara dootul dëgg ci yàlla xanaa di ñun li ñu nekk nii suñu xol yi ba léegi des na xam ngeen julli gi ñuy julli julli bokkul ci jaamu yàlla déedéet obligation la wax bu rabbak xataa yaatiyakal yaqin waa julli gu nangu kañ lañ koy xam kon bokk ci ëllëg la boo teeree sa kanamu borom buy càmbar julli lay jëkk a seet ndax obligation la nee na la du la wàcc mukk ba ba ngay dee waaye yàlla nee na bu ëllëgee la may jëkk seet mooy julli gi julli nag mi ngi mel ni jëmm ci nit ku ñu dagg loxoom du ko teree doxi soxlaam waaye bopp ba dagg na suuli mooy julli bu baaxul yàlla nee na leneen duma ko seet te fële amul taalube tiijaan laa de wala alaaji Malick ay say ma sëriñ déedéet Cheikh Seydil Haaji Malick lii may nettali Baye Abdou Aziz moo ñu ko doon nettali nee na dafa toog ak baayam muy waxtaan di waar nit ñi ba mu yàgg rek mu yuuxu ñëpp na tekk mu ne ngal la Maodo ak ñetti fanu bàmmeel moom Cheikh Al Hadji kon kooku assuré wul kenn ki mu assuré kay mooy ku tegu ci yoon wa yoonu yàlla teg ci yoonu li nga xam ne moom la yonent bi salaay salaam alquran mu jëfe ko wax ñu ñu teg ci suñu mag ñi ñëw jotal ñu ko est-ce que noonu lañ ko doxale ñun wala na mu ñu neexe léegi على حب بلا عمل وتناف على حب بلا عمل وتابع عن سنة المختار تختارني fa tabaarakallaahu yaa ngi may yóbbaale sax te man baat bi neexul fan laa toll dama bëgg gars yi di ma bàyyi xel ndax euh, maanaam dañuy fàttalante dañuy gindikunte ci li nga xam ne mooy suñu njëriñ ëllëg mooy tax ñu mucc mooy tax ñu àgg ci fa ñu bëgg a àgg te bu bu ñu àggee rek suñu borom ne udxuluha bi salaamin aminin te loolu nag pour ñu am ko fokk ñu fegu fokk ñu am nu ñu mel ci suñu digganteek suñu bopp yàlla lu ñu koy defar ku amul doom amul maam amul kenn moom kottu dong la nee na nag ku ma bëgg defal defal ci nit ñi mu dellu soit ci xoolu wa xoolu li naa ak xusnan mu salaata xoolal yàlla neewul ak aqimu salaata xusnan julli foofu foofu julli lay indi waaye fii nag dafa ne rafetalal rafetal leen seeni diggante yi muy sincérité xam ngeen yàlla di tax mu jël nit jëmmam yëpp mu ne ko fang ci yaa ngi yéen a ngi gis may wax de bët yi nopp yi làmmiñ lépp waaye nekk te yooyu yëpp waxul xam nga liy wax xol bi yàlla nee na man foofu laa branché yow lam toor li ngay wax yëpp est-ce que loolu ngay wax yaa nga ca soo ci nekkul xam nga soo ci nekkee xam nga waaye ba ëllëg danaa la ko càmbar de fa nga toogoon ajjuma di wax nan nangam est-ce que loola nga doon wax yaa nga ca waaye bu leen seet nag ndax man seet leen la baax ngeen jël jafe man nag ngeen bàyyi ma xam ne ëllëg man ak sama boroom rekk la man ak sama bàmmeel du seexal xaaji Malik du Alaaji Abdu du kenn kuy wax seetal la baax nga jël jëfandikoo te bàyyi ko moom waaye Sénégal léegi loo wax am ñu ci dugal leneen lu bokkatul ngir jaxase nit ñi te damay wax ne képp koo xam ne jullit nga bul gàggantikoo ci mbedd ñun Sénégal dañu mën a toppandoo dangay ngay ànd ak sa baay mu yeewu 4 heures du matin jaamu yàlla fuuf jamono dem ba am ñu la këf nga weddi sa baay moo xew léegi de weddi sa baay te ridallahi fi ridal walidayhi yàlla nee na ku weddi sa baay doo am sama ngërëm soo amee sa ngërëmal way jur nag man yàlla ma am sa ngërëm am sama ngërëm waaye ñun xale yi wutatuñ ngërëmal way jur kon mu mel ni ñu ngi woon ci astaxfirullah luñ ci teg bu ñu pare la ilaha illa allah laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin mooy la ilaha bi ngi leen doon wax léegi ngeen teg lan léeg-léeg salaat al fatiha ya ayuha alladina amanu sallu alayhi taslima moo tax gis nga tariqa bii génnul neex na layal lépp alxuraan la te alxuraan du alxuraanu kenn ku dul yàlla cheikh ñëw nag am lu ko ci maamam jagleel jox ko ko garantil ko ndax cheikh amoon na lu rëy lu mu nekkoon lu nangu lu yàlla nangu waaye maamam ne ko bàyyil loolu am na leneen lu gën muy salaatal faatihi maamam jox ko ko muy salaatu bu fa tabaarakallaahu léeg ma dégg sax ñu naan tijaan yi moomu ñu salaatal faatihi waaye comme ñu ngi koy xëccoog ñun kon li ñu yor lu baax la mhm. te bul ko ko caaxaan sëñ Hadi Touré tey sëñ Hadi borom xam-xam ba yàlla yi man leen dégg ngeen bul yàlla tam ko tóolu te dooro Seexu Tijaan war yóbbum shari'a loolu bokkul ci Tijaan gis nga nee na mbooleem walu yu yàlla yépp moom naw leneen waaye moom jaayante na ak Seexuna Tijaan yi ñun nag fu ñu toll tey kii murit la kii siijaan la kii nàngam la ku nekk yëkkati sa sëriñ ca kaw ñu ànd ceeg yow waaye Maodo nee na ba ëllëg saw fa tara itan waaw bu pënd ba wuree danañ xam ku war mbaam ak ku war fas jóge ca làmba ja daan di bàkku moo gën a wóor di dem ca làmba ja te làmba ja tëgg guñ ko ëllëg la bu ñu teeree ci kanam suñu borom waaw yëf yi du fii ku mu neex nag ne nàngam ku mu neex ne nàngam lekk sa yàpp naan sa teg ci coca cola teg ci attaaya naan gis naa yàlla bi gis naa yonent bi gisoo dara yàpp wala jàpp rek ngay miir rek di denir rek naan gis naa yàlla mag ñi Baye Abdou nee na dafa am ku mës ñëw di ko nettali gént mu ne ko xanaa xamoo ne si yàlla du dénk kuy sendal waaw ah? ba mu la koy dee kan moo ko fekke yow ak moom rale kon dafa jar siiwal waaye hmm? xoolal ñun léegi fu ñu toll tey gisuñu dara nag dara lañ gisul waaw parce que bala ngay gis yàlla wala xaw ma astafurlah bala boo ne gis naa yonent bi te kenn du la gis ci jàkk doo julle kenn du la gis ci mbooloo jàkk yow daal mbooloo mi topp na la xaalis la ngay wax pour sa poos rek la intérêt personnel waaye sëriñ boo xam ne du la waar ci yàlla du la jiite ci jàkka ja du la nangam du la nàngam nga topp ko ba kañ te yàlla ba muy wax nag ay borom xel la waxa te ay borom xel rek a fi ne ku nekk ak sa bopp ku nekk ak sa bàmmeel nee naa leen fii ci àdduna bii moo xam tiijaan moo xam murit moo xam laayeen moo xam moo xam boo demee ci rëbës gii fekk leen fa ñoom ñëpp seen sëriñ yi mënuluñ leen dara foofu ëllëg nag waaye nag sëriñ si mënal nañ ñu dara ci kaw li nga xam ne moom la ñu roy ci yonent bi jàngale ko nga sax ca boo ko defee rek di nga àgg kii naan la alaaji Malick rek laa yaakaar te Maodo dafa am ku mës a ñëw ne ko si dama la dégg rek yaakaar la di la dénk sam bopp Maodo ne tekk ba mu yàgg ne ko si man ngay dénk sa bopp yaa ngi dénk sa bopp ku wóoluwul boppam waaye am na koo xam ne ku ko dénkoo dana la téye ba nga ñoŋ nañ ànd jox ko suñu bopp mooy suñu borom moom Cheikh Al Hadj Malick léppam léppam bëgg ñëpp mucc jàngale daan na wax ne li fi ne. man Maodo danaa ko bokk ak yéen ñu ne ko lu fi ne mu ne xam-xam bi looleen am nag yóbbu leen seen kër musul laaj haddiya moom Cheikh Seydi El Hadji Malick nee na surafaaw yi ñoo ko moom waaye moom musul laaj haddiya ba tey jii Tiwaawan looloo fay dox déedéet déedéet bu ko neexoon laaj haddiya bokk na ci surafaaw yi ndax moo jël yonent bi wax ci moom loo xam ne ba mu nekkagul walay sa nafun ala alhamdulilah zil ijaabi wal qidami topp yonent bi topp yonent bi ba mu nekkagul nekk leer Cheikh El Hadji Malick di ñu wax yonent bi ba mu gane si àdduna ba mu gane si àdduna ba muy jàng dox ka doon topp ci gannaawam di ko baleel comme niñ koy defee yooyu yëpp Cheikh El Hadji wax nañu kan la topp yonent bi ba mu génn àdduna ka ko doon bañ ka indi ñaq gañ ko doon defoon ndox ba ka indi perkaal ba ka bañ ko dencee ba pare ka doon raay bàmmeel ba sotti ndox lépp Cheikh Al Hadj indi na ko léppam yonent bi la moo tax mu ne Cheikh mooy sama sëriñ moom Cheikh Al Hadj nee na Cheikh laa wéer sama gàmman sama sama gannaaw gii Cheikhuna Tijaani la waaye bu roy di am nag royu ma Cheikh de ñu ne ko koy roy kon mu ne yonent bi ba mu yàgg mu ne yonent bi fu mu teg tànka man Maodo ba ma ko teggee falaa ko teg wàccu ma ko benn yoon jaamuma yàlla pour ragal ko ngir safara déedéet. xam nga lu ma bëgg man Maodo dajeek suñu borom mu ne ma Maodo jërëjëf waaw jeex na. jaaraama Cheikh Seydi Aji Malick yow mi tee. su nas xayru xalqulaay dee fii dundal nga ko ñoo ngi jaajëfal maam As liggéeyam rafet na liggéeyam ci réew mi kuy wax mu waxal ko te As tool baa ngi waar yaa ngi mbay mi rafet na na buur yàlla dollil koy ngërëm ndax yooyoo nga ko ma ni demal ndar demal jël jóob makaw lax demal borom naa si làq jàngay dolli yëpp as liggéey fa tabaarakallahu kon njaboot gi ñu leen di dénk ngeen bañ doon ñoo xam ne bu ajjuma sol lu rafet yor kurus di wër a xadara yi loolu du tari xabi ndaw amatul ay magum jëmm ay mukallaf ñoo fi ne ku jàppe sa bopp ndaw ëllëg dee dalay bett soo demee ba nga xam ne majeur nga la war sa way jur donte mooy sa way jur moo la war kon war nga bàyyi xel sa bopp te wut référence suñu référence du kenn lu dul mag ñu baax ñii damay wax ne fiñ ñu toll nii bu mag ñi jeexee àdduna bi tukki dinañ dem ba néew dootoo gis ku ko sang wallahi alazim ñun xale yi lan est-ce que def nañ suñu yitte ci loolu demal ci morgue yi boo demee mag ñi ngay fekk ñu sa doo ci gis benn xale parce que yitteelu leen xalaatuñ ne nag dañuy dee ñoom waaw xale moom jàpp nañ te xale yaa ngi dee rek léegi parce que diine yitteelu leen àdduna mbokk yi dellu si leen nit ki amul lu dul diine nit ki amul lu dul jaamu yàlla pour nga am ngërëmal yàlla nag foog nga jaamu yàlla foog ngay julli xam lan mooy laab laabu xadas laabu xabas gàmm yi bari na waaye nee na leen gàmm yi nañ ko soppi di jàngale laxdari yu seen maam Cheikh El Hadj Abdou bi mu desee ay presque deux semaine wala trois semaines wallahi alazim fii ci kër gi gël tàppe rawaan la woo ne ko dama bëgg ñu firi laxdari yu ma ñëw fekke si ko keroog ca ëtt ba la toog ñuy firi jàngale mu ne day jàngat jàngalewu moom dafa bëggoon nit ñi bàyyi xel ndax yi xew léegi dangay dem ci jàkk gis imam ba julli ba pare boo sàgganee da ngay baamuwaat sa julli julli ga dara baaxu ca surtout ndakaaru léegi bari na waaw ma wallahi alazim hmm? uh-huh. rahmaani maa la ko wax moo xew fii moo tax gàmm yi dañ ko war a soppi di jàngal sëriñ Mbay Abdou yal na yàlla guddal fanam moom fu mu demee ma ngay jàngale gàmm yi day jàng day jàng waaye te xale yi way fii jigéen ñi fett su nangam nangam bu ñu paree koo ci laaj lu ñu doon wax danaan la xaw ma ci dara gàmmu nga daal neex na doo fa ci te nga ne da nga tàntal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah mag ñi daawuñu gàmmoo nooñu dañ daan gàmmu ba pare nga jële ca njëriñ dem jëfe ko waaye lii gàmmu yi jigéen ñi toog fii mel na leen neex jaxasoo góor ñi ñiy way nag dañuy tëgg sax foole ci léegi nee naa leen lee xam lu ci des ut tama moo ci manqué wallahi alazim moo tax doo yëg dara da ngay dem gàmmu doo fa yëg dara te mag ñi daxalewu noonu dañ daan jàngale daje diine diine la tàntal yonent bi ba pare te yonent bi du fa teew nga xam ne ci ñoom ña fa nekk la ña ko def la kon mbokk yi xale yi ñun ca bokk nag li may wax nii maa ci jiitu nañ góorgóorluwaat bañ a rek def ni ma wax léegi bu àjjuma ñu sol yére yu rafet ah yor kurus xadara bu mu nekk nga jug fi te tariqa bi du xadara rek da di jël tariqa bi jël di wasifa sabaan wa an am na ñu wax na tariqa bi benn yoon lañuy ñuy was cheikh daan wasifa alaaji malik mooy suñu sëriñ te alaaji malik ñaar la indi wasifa suba wasifa ngoon laazim suba laazim ngoon waaw mais musiba la ñetti yoon boo ko tardee ci xadara dog nga ci tarixa bi ñetti xadara waaw waaw te amoo ngant ngant day am nag bu ngant amul la ñu wax waaw ngant nag ngant julli sax dafa am ngant waaye bu ngant amul moom moom pare nga ci tarixa bi wasifa bi saba an la wa masa an suba ak ngoon la Cheikh Al Hadj moo ko indi ñeneen ñiy wasifa benn nañ ànd ak ñoom ca loola waaye ñun ñii aju ci kër Cheikh Al Hadj Malick wasifa suba wasifa ngoon parce que Maodo dafay indi xasan mu indi ahsan bien lu ko gën du très bien Maodo très bien lañu indil nag parce que gis na ne bu ñu wasifawaan bu ñu julliwaan tibis comme waxtu wi dañ daan toog ci booru jàkk ji te ku toog ci mbedd jëw ku toog ci mbedd rek jëw moo tax grand place yi nañ ko moytu ku toog grand place di nga wax lu sa yoon nekkul te wa man yaxtul muminan mutahamminan fa jazaau jahannam ñan ñoo tax yàlla wax ko yàlla daf ñu bind pour lakk ñu xam nga ñan ñoo lan moo tax aaya ba wàcc yàlla nee na ñu yor seen làmmiñ di wax ci nit ñi naka sudul noonu donte dëgg la nag laa wax te ku toog ci mbedd di nga jëw dinga wax lu sa yoon nekkul dinga nga xool loo wax xool Maodo ne kat diggante bi dafa gàtt te dañ daan toog ci boori jàkka ji di xaar gee mu ne nañ la mbalaanu wasifa fi tudd si ba yàlla bàkk yàlla bu ñu bu waxtu wi jotee ñu julli gee bu ñu jullee ba pare safa 8 heures te boo safa 8 ba pare sa xel lu muy dem reer tëdd taloo bàkkaar loolu lañu ñu Maodo indi kon mbokk yi ah, waxtu wi jot na ñu ngi sant mënoon nañ gën a guddal. fa tabaarakallaahu waxtaan ak yéen ci góor gi xam naa ne bëggoon ngeen ko waxtaan ci Cheikh Al Hadj Abdou Aziz fa tabaarakallaahu xam naa ne ñëpp a ko sopp waaye góor googu xam naa damay bàyyi ba beneen incha allah tey tey Tiwaawan dañu am gàmm mutamassikiina ca ëttu Cheikh Al Hadj Malick ndax góor gee ci joxe woon ndigal jox ko ñoom Serigne Mbaye Abdou ñu war ko taxawee fa tabaarakallaahu xalifa baa ngi fa ñëpp a nga fa waaye ñoom ña nga fa waaye man foog ma ñëw fii bokk ak yéen lii. ndax yiw kese ngeen may yéene man dama wax ne tey man mii maa bénéfice man mii maa war a wax jërëjëf waa Kër Massar ci lii ci waawoon pël ci lii ñu ma defal ndax amaana su ma fi nekkul woon yàlla mën na ma nattu ma nekk ci leneen lu dëppoowul ak lii waaye yen ñi ma woo ci yiw bi man aw ma seen fay te xam ngeen lu ñu yàlla dig ne fa ulaayika yubaddilullahu sayyaatihim xasan innal xasanaat la wax xasanaat yi mooy lan mooy bakkaar ya ngeen defoon yàlla nee na ba ngeen accès fii yépp effacé naa waaye fa ulaayika yubaddilullahu sayyiaatihim xasanaat nee na yi ngeen defoon sax nee na nee na yëpp defaat naa ko mu doon yiw kon mbokk yi ku fi jógee na jàpp set na wecc nga sax ci lu baax di wax lu baax fonk say wayjur di dimbali doomu aadama yi soo ko mënee jàkka ji nañ fi baril tànk nañuy baril tànk ci jàkk yi ndax ëllëg buñ ñu tegee ci kanamu jàkk ji jàkk ji ñu móolu duñu dinañu seede kon nañ ci bàyyi xel bu baax di ñëw di fréquenté jàkk ji te xam lan mooy suñu li ñuy daj ci internet yi di ci daj lu ne bu ñu ko defee góorgóorlu tuuti ci suñu wàllu diine maîtriser lépp yàlla ñu ko yàlla defal di sant mag ñi bu baax di ziyaara bu baax di baalu xaq gàtt na waaye mbégte rek lañu àndal mbégte rek moo ñu fi indi ak yiw lii ñuy wax nag suñuy kilifa ñoo ñu déey waaye du xam-xam bi matewuñ ko mënuñu ko yal na yàlla barkeel ndaw ñi yal na yàlla barkeel leen yàlla na yàlla dundal leen te yàlla defal leen sutura ak xéewal la mag ñi sosoon bàyyi ko fi yàlla ngeen sos sof sof mooy lan mag ñee sos jàkk ji bàyyi ko fi sof leen waay xale yi nañu sof mooy ñëw di dundal jàkk ji lu fi war ñu taxawu ko mag ñi amatuñ kàttan ngeen jàppale leen ci jàkk ji li ñuy laaj ci jàkk yi ngeen def yitte dugg ci marché bi di dajale xaalis di ko indi fii ñuy ak def yenn kii yàlla na ci yàlla saxal ngeen bal ñu xaq wasalaamaaleykum wa rahmatullah